asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbooloo mi sëriñ Moustapha. nee na barke it mi ngi ci. yërmande ngi ci. mi ngi ci nuyoo boobu. kon maa ngi koy jox mbooleem ku fi teew. kon nag nuyoo koy jox mbooleem ku fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw. di ko jaarale ci kilifa gi nga xam ne moom la yàlla dogal tey mu teewee bis bi nee na nag nuyoo boobu mi ngi koy jaarale ci kilifa gi nga xam ne gii moom la yàlla dajale tey mu teewe bis bi jiite ko muy ministre éducation Serigne Mbaye Thiam. nee na muy le ministre de l' éducation monsieur Serigne Mbaye Thiam. Eh, dinaa jataay bi boolewuñu. sëriñ bi nee na seen toogaay bi ak seen jataay bi boolewu leen ba ñu àndee démb la. nee na fu ma ne rek fekk na ma fa. nee na kat moom sëriñ bay caam mii sëriñ Moustapha nee na fépp fu mu mës a nekk rek moom sëriñ Mbaye Thiam fekk na ko fa. ànd ak eh, ministère Ousmane Tanor Dieng. nee na ànd ak nag l' actuel président du conseil économique social avec le haut conseil des collectivités territoriales Ousmane Tanor Dieng. ñu xam kan la. nee na sa Moustapha it mu xam kii toog di Serigne Mbaye Thiam mu xam kan la. ba cër bi agsi ci moom. nee na yàlla dogal ba cër bii tey ñu dénk ko éducation ba mu egsi ci moom tey. ba cër bu rëy bii ñu ñu jox Sénégal gépp nee na ba cër bu rëy bii ñu jox Sénégal gépp. yàlla dogal ñu jaarale ko ci noonu. nee na yàlla dogal nag ñu jaarale ko ci moom sëñ Moustapha Abdoul Akram dafa mel ne loolu lu rëy rëy ci man la. nee dafa mel ne daal lii ñu ko tuddee bis bi dafa mel ne lu rëy rëy ci moom la. ndax tombe tombe meneen mbir la. sëriñ bi nee na kat olof yi dañuy wax ni tombe daal meneen mbir la. kon maa ngi koy nuyu bu baax. nee na ko di monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam Serigne Moustapha Abdoul Akram nee na mi ngi lay nuyu bu baax. nit ku ne nag kër kër nit la xëye nee nit koo gis nag nit la xëyee. ministre de la république nga. nee na yow Serigne mbay Thiam ministre de la république nga. noonu ay citoyen lañu. na ñoom nag sëñ Moustapha Lakaram ay citoyen lañu. kon dañu lay jox nuyoo bi rek. nee na kon daal dañu lay jox nuyoo bi rek. yaag si gouverneur région bi nga àndal. yaag gouverneur de bi nga àndal di El Hadj Moustapha Ndaw ak directeur yi nga àndal yëpp. ak mboolem nag directeur yi nga àndal yëpp ñu jóge ci sa département ministériel. ak région nga ne. ak nag région bi nga nekk nga xam ne gouverneur bàyyiwul nga xam ne ñi jiite njàng mi yëpp. nga xam ne bii kat région bii ñi jiite njàng mi yëpp commencé ko ci Seydou Simé. ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. nee na ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñi yor njàngale mi. ak ci département Ndiarème. ak ci département Diourbel. département Mbacké. département Mbacké bu Bambey. man nga ne département Bambey. nee na mën nga département Bambey. ndax ku ci ne rek am na ku fa jóge. nee na fenn fu ci nekk département yi am nga ku fa jóge. koo xam ne ànd na ak mel na ne suñu jëmm nee na mu mel ni daal nee na ni ñooñu suñ jëmm lañu. ndax eh, maire bi ñu fekk fii. nee na maire bi nga xam ne bii moom lañu fekk fii ci Mbàkke. muy sunu doom. nee na muy doomam. dégg nga li mu wax ci njàngale mi. nee dégg ngeen li maire Abdou Mbàkke Ndaw wax ci njàngale mi. Eh, ndax sëriñ Touba eh, ñi weesu woon jàng. nee na sëriñ Touba maamam li wee ñi weesu woon jàng di mag ña. bëgg leen a wan naka la. nee te sëriñ Touba bëgg leen a jàngal naka la. ci suuf si la daa tombe. nee na sëriñ Touba daan jël ci suuf si daan ki def ay tomb. tomb yooyu la mag ñi doon jànge nee na tomb yooyu sëñ Tuubaa daan tomb la ci la mag ñi daan jànge ba di ci jàngale ba di ki jàngale eh, loolu lu la nee na loolu nag lu rëy la woon eh, boo gisee Jurbel nee na su ngeen gisee nag njaareem eh, ki jiite maire yëpp ñëw na nee na ki jiite maire yëpp di Abdou Diagne ñëw na boo demee Bambey nee na soo demee Bambey Ibrahima Khalil député maire Ibrahima Khalil Fall honorable député maire bu Kër Samba Kane soxnaa ma nga nee toog mu yebal ko fonk bis bi loolu ngir diggam ak xam naa ñi ñëw ñëpp nag. nee na sëriñ bi nee na xam na ni ñi ñëw ñëpp nag. Euh, conseil ak conseil. muy au conseil au collectivité territoriale ak conseil économique social yeeg ñoom ñëpp. Euh, ñoom ñëpp yéen yéen yéen leen ëmb ci biir. nee na ñoom ñëpp nag gouvernement bi moo leen ëmb ci biir. waaye ñëw nañu it ci sunu diggante ak. waaye ñëw nañu it nag mu ci seen diggante ak sëñ Moustapha Abdoulaye Karam nii mu ñoom am baag ñoom madame Mbaye ak ñoom ñëpp. ndax man ku fonk lu yàlla dogal la. nee na moom sëñ Moustapha Abdoulaye Karam nii moom daal ku fonk lu yàlla dogal la. ci administration rek laa tënku. nee na moom nag dafa tënku ci administration. kon ak ndey naam mi nga xam ne. nee na ak ki nga xam ne kii nag ah doomi dëkk bi nag doomi région bi nday naam Diouf mi nga xam ni. ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey ak ñëpp ci liggéeyu alphabétisation. du neex a tudd. nee du neex a tudd waaye bu leen ndey naam la tudd nga ñëpp. ak ki bi jógee UNESCO. nee na ak directeur bi nga xam ne moo doon wax léegi jógee UNESCO. ak li làmb ci bis bi yëpp. ak li nga xam ne ñoo làmb bi yëpp ñoom Sidi saam ak ñoom ñëpp. nee na ñoom ñëpp daal ku lim juum waaye ñoom ñëpp ñu leen di nuyu seen nuyoo bi ci war. su ma bëggoon a wax wax ji yëpp. nee na su bëggoon a wax wax ji yëpp nag. dana gudd. nee na day gudd su boobaa. dana yàgg. dana yàgg lool. te ñu jëlagul kàddu. te ñi jëlagul kàddu. wax nañ li ma bëggoon wax. wax nañ li mu bëggoon a wax. jataay nag bu fekkee sa kilifa da caa yónnee. nee na jataay nag bu fekkee ni sa kilifa daf caa yónnee. bokk toog yu tolloog yow. say bokk yu tolloog yow toog. wala ñëpp la xam-xam. wala ñëpp la xam-xam. wala ñu gën laa xam. wala ñu gën laa xam. Eh, da nga leen di bàyyi ak jataay. na nga leen di bàyyi ak ba. genn wàll na genn wàll gi. Eh, eh, sëriñ Moustapha Diatara di sunu jarbaat. sëriñ Moustapha Diatara mii toog di seen di jab jarbaatam. defe naa dana andi li xalif général. nee na moom sëñ Moustapha Diatara daal su jëlee moom la xalif général ku murit moom la wax ci jataay bi sëñ Mbacke Abdourahmane dana wax ci sunu tur. sëriñ Mbacke Abdourahmane mii toog dina wax ki tur sëñ Moustapha eh, am solo nag mooy sëñ Ahmad Badawi mi toog. sëriñ bi nee li am solo nag mooy sëñ Ahmadu yu Mbacke mii toog moom sëñ Fallou Mbacke. leeral leeral nañ lépp. nee na leeral nañ lépp. sëñ Cheikh Aliou leeral nañ lépp. sëriñ Cheikh Aliou Mbacke mii leeral na lépp. sëñ Aroona sëñ Maam Mor biig rek lañ wax. sëriñ Aroona Mbacke mu Cheikh Mourtala sëñ Maam Mor Mbacke mu Cheikh Mourtala wax nañ biig rek téléphone. te moom mii daje nañu bu yàggul rek. te nee na sëriñ Mbaye Thiam mii daje naa bu yàggul rek ci màggalu daaru muxti ci màggalu daaru muxti ci université ba nee na kon nag diggante ministre sëñ Mbaye Thiam ak sëriñ Maam Mor Mbàkke mu Cheikh Mourtala xam nañu ko ndax ñoom ñaar fu ne daje nañ fa bëgg njàng moo waral daanaka kon Sénégal euh, teew nañu fi. nee na bëgg njàng nag moo tax Sénégal daanaka ñëpp teew nañ fi. ñi fi teew ay junni na ñi fi teew daal ay junni junni nit lañu. di leen jàngal di leen jàngal. Eh, yàlla rek. te yàlla rek nag tax. nee na ci jàngalem Serigne Touba nag. kon nag lii nga xam ne tey jàngaleem pël la. nee na nag lii nga xam ne tey jàngaleem pël la. bu la. bu séeréer la. naar la. bu wolof la. bu joolaa la. ba xeet yëpp jàll. ba xeet yëpp jàll. nee na kenn ku ne mën cee xam loo faje sa soxla. jël loolu nag. Eh, nee na xool ku demee ni nun. ñoom ñi ñu teew. ngir jëmmal bis boobu. nee na ngir jëmmal bis boobu. nee na bis bii daal dañ koo jagle suñu sawaar rek waaye du bisam. nee na bisu Serigne Touba Xaadimu Rasul maamam la. bisu lislaam la. nee na bisu sénégalais yépp la. nee na bisu Afrique la. waaye UNESCO bisu àdduna bépp la. nee na kon nag loolu sëñ Moustapha nee na daf ciy bëgg rek. nee na mbégte mu rëy. di ko ci ci di ko jaaree nag jéew sëñ Mbaye Thiam mi nga xam yaa fi toogal nguur gi. nee na waa Njaareem ak waa Mbacke. ak waa Bambey. bu ñu xalaatooni bu ñu xalaatoon ni. xalaat bi faw mu agsi ci faw mu ci yow. soo ko rafetlu wutoon it. soo ko rafetlu wutoon it. kon du agsi fii. nee na kon moom sëñ Moustapha Abdoulaye Karam yëg na ni xalaat bi yaa ko validé. nee na Ousseynou Fall mu baax mii nga xam ne bii mooy alphabétisation ci diwaan bi te ak inspecteur académique bi nga xam ne moom ngeen andil te mu tegu yoon. nee na ak inspecteur académique bii nga xam ne mooy Seydou Sy nga xam ne dafa def bu mu ba léegi dafa tegu ci yoon. buñ xalaatoon it. nee na buñ ak sama gouverneur de la bu baax bii nga xam ne bii lu jéem jaagate mooy njaag wala ji Moustapha Ndaw. lu xalima def rek. nee na lu xalima def rek. xalima mën na koo dindi. kon la tax mu jàll. kon nag la tax loolu jàll yow nii daal monsieur le ministre yaa ko validé waaye boo nekkee ci biir it nee na premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ngi ci biir waaye président it nag de la république son excellence le président Macky Sall mi ngi ci biir nee na nit nag sëñ Moustapha nee na amul lu may boppam nit boppam rek la am nee na bi ngay ñëw yow sëñ Mbaye Thiam en tant que ministre de l'éducation yow rek la nee na moom bi muy ñëw moom rek la ci àdduna nee na ñum rek la bu ñu dellu ca yàlla bu ñu dellu ca yàlla nee na ñoom rek ay dem koo bëgg a yóbbaale nee na koo bëgg a yóbbaale nag ca bàmmeel ba du dem moom rek ay dem nee na kon bis bi bisam la nee na yow yow président ñu ngi koy sant bu baax bu wér nee na bis bi bisam la nee na mi ngi ñaan yàlla nag mu taxawu ko yàlla dimbale ko dimbale leen ndigal li nag um, dama amul lu a wax. nee na ndigal li nag dafa amul lu mën a wax. ndax kilifa moo fi yónnee. ndax kilifaam di sëñ Mountakha moo fi yónnee. waaye lii mënu ko ñàkk a wax. waaye lii ko ñàkk a bañ a wax. jox sëñ uh, Mbacke Abdourahmane. jër nag jël doom jox ko sëñ Mbacke Abdourahmane. moom sama mbokk yi teew. nee na moom mbokkam yi teew. nga xam ne sëñ Modou Abdou Doot mooy kilifa gi. nga xam ne sëñ Modou Abdou Doot Mbacke mi xalifaam mooy kilifa gii. moo la teeru. moo la teeru. ragal naa ne. ragal naa ni Eh, ni mu nu fekkee. nee na ni ngi leen fekkee. barki démb laa jógee la jógee Abidjan ci mission bu ko sëñ Mountakha yónni woon. ak yeneen yi ñu dëgmal. waaye kon sëti sëñ Touba waaye kon sëti sëñ Touba waaye njabootul islam gépp. tariixa boo mën a am tariixa boo a am. da nga fi gis koo xam ne ku ko représenté. ku wóor koo xam ne dana toogal. koo xam ndax jote na ko ñëpp nee na yëf yi ñu ko tuddee rëy na ci moom lool waaye yow sëriñ Mbaye Thiam nag yow mi ñëw di ñu dédication ak ñi nga àndal dafay daal di reyaat nag ki moom nee na léegi rek téléphone mi ngi ci wax ak sëriñ bi kon ñu ngi lay ñaanal di la gërëm.